asalaamaaleykum yow mi siiwal sunu sécurité dalal ak jàmm si vidéo bu bees bi defoon nañ bu yàgg-yàgg yenn application yoo xamante ne mënta ñàkk sa téléphone ñu joxe woon sa juróomi application dinañ si defaat euh, yeneen tey jox la yenn application yoo xamante ne mën nga koo télécharger sa téléphone Android yoo xamante ne am njariñ la mën naa sax léegi-léegi mën nga koo bañ a mën a ñàkk balaa loolu ñu ngi lay ñaan nga abonné sunu seen YouTube bi partager vidéo yi ngir ñeneen njariñu si application bi di njëkk a gis doo ko fekk Play moo tax dangay ubbi sa téléphone boo ubbee sa téléphone demal sa Google Chrome wala navigateur bi ngay utiliser boo fa demee nga bind site bii nii f tiret Droil point org nga si cliquer boo si cliquer mu dugal la ci site bi lii dafa nekk benn application boo xamante ne bu ama am solo la mënoo ko ñàkk sa téléphone moom F droite lan la moom dafa mel ne Google Play Store benn store la boo xam ne dañ see denc ay application yoo xam ne free la ak open source software defoon nañ ko vidéo lan mooy free ak open source software mooy mën nañ ne yenn programme la yoo xamante ne dañ ko defar ba pare euh, xool ko daat koy partager xamante ne euh, yu si bëri yi nekk fii nii mën nga koo bañ a fekk Play Store ay xeetu application yu bëri yu am solo ngi fii fii rek nga ko mën a fekk xamante ne moom rek doyoon na benn vidéo waaye xam nga bon ba ñu jël ñaar wala ñetti application boo su duggee bësal download f droite mooy télécharge ko boo ko télécharge sa téléphone nga installé ko comme ni ngay installé benn application boo xamante ne dañ la ko envoyé gis na site bi boo si duggee application bi nii la mel léegi boo ko installé ba pare nan lay mel suñ ko installé ba pare nii lay mel comme ni nga ko gisee nii nga ubbi ko boo ko ubbee application bi nii lay mel sa téléphone nga gis ne lay indil fii euh, yu mujj yi lay test fi ay catégorie pour yoo mën a télécharge jëm si développement yu jëm si yu jëm si connectivité nga gis ni ay catégorie yu bëree ngi fi ni keneen bu koy keneen bu ko yoree ngeen partage seen application lu jëm si mise en jour di jëm si paramètre lu jëm si paramètres yi mën nga see dugg réglé paramètres yi comme euh, ni nga ko bëggee moo xam muy muy Euh, mise en jour automatique wala muy bañ a mise à jour automatique wala yeneen yu demee noonu mu lay afficher application yi xam ne mooy euh, compatible sa téléphone wala muy afficher yëpp moom bu duggee nii lay mel comme ni nga ko gisee nii lii paramètres yi la paramètres yi mën naa see bañ kii waaye mën nga xool yow ak nu mu dëppoo ak sa euh, bëgg-bëgg comme si paramètres yi mën ngaa gis fii nii kañ lay utiliser wifi bi ba xam bis bu set mu koy utiliser wala déet kañ lay utiliser bu dee euh, comme si benn pièce moom ngay connecté kañ koy utiliser xamante ne mën ngaa lire lépp benn par par benn xëy na dina gis yoo xam ne dina dina la ci yéem boo duggee mën ngaa ñëw si catégorie yi nga gis ne ay catégorie yu bëree ngi fi lu jëm si graphique ah, lu jëm si internet ak yeneen ak yeneen nga gis ne comme genre Play Store la waaye application fii nekk comme ni ma ko waxee woon free la ak open source application mën na nag yenn application yu wóor la yoo xamante ne xool nañ ko avant mu fi euh, dugg si xam ne bu la neex mën nga ko télécharger am na benn boo xam ne dinañ ko jël si fii lañ koy jëlee kon lii mooy euh, première application bi xam ne dinañ ko gis deuxième application bi mooy benn beneen bi mooy euh, new pipe new pipe xam nga ne boo duggee ci YouTube yow ngay gis ne ay publicité yu bëri da lay sonal yu lay traqué yu demee noonu new pipe dañ koo defar comme niñ gise woon Fruitip ci vidéo bu mujj bi wala avant dernier bii ñu gisoon ñu defar ko noo xamante ne euh, yu comme yu jëm si Google ñu lay traqué yooyu yëpp dañ ko dindi ba pare publicité yi du la sonal man ngay euh, abonné saa ngay am compte ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dina la jariñ boo ko téléchargé xam naa ne ñu bëri fi mu toll nii seen YouTube kii sonal na leen euh, nu ñu koy waxee te publicité yi sonal na leen léegi bu ñu si duggee fii lañ koy jëlee mën ngaa dugg sa site ba automatique new page am na nañ site wala nga jëlee ko fii doo ko fekk Play Store yaakaar na xëy na waaye jàpp mën na danga ko fa fekk après fii ngay recherche pour ñu recherche ko mu gën a gaaw wala nga dem si catégorie internet li bind niiw paa yëpp moo nekk nii ci kaw mhm. nga installé ko ma ne la ndax danga koo bëgg installé waaw léegi installé wu na pour ñu ubbi ko ngay bës open rek mu ubbi automatique voilà euh, ñu dem ci installé naa ko ba pare new pipe moo nekk nii nii nii mën ko ko bës boo ko bësee moom nii lay mel ngay gis ne comme YouTube ni mu lay mel rek yu nekk trends ak yu demee noonu mën ngaa recherche fii bind sunu sécurité daal di recherche vidéo yëpp ñi nii seen baa ngi nii mën ngaa def euh, subscribe abonné xamante ne boobu see fi mu toon vidéo ba mu tàkk publicité du la sonal dara du la sonal mën ngaa bës ci kii bi ñi nga eh, abonné fii lay nekk lan moo bees lan moo nekk trending ah, mën ngaa jëm si paramètres yi moom it histoire yi fii la nekk xamante ne lu jëm si yenn yi yëpp lu koy si eh, sa téléphone la koy denc eh, localement xamante ne amut sax YouTube kese waaye mën nga faa fekk yeneen lu ñu def si ay SoundCloud ah, ay format type ak yeneen ak yeneen waaye li ci ëpp solo comme youtube bi xamante ne mën nga seetaan vidéo publicité du la sonal ba pare sa euh, lu jëm ci confidentialité da koy fonk ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dama lay bàyyi euh, nga télécharge application bi xoolal ko sa bopp. application bu mujj bi ñuy gis mooy ban boobu mën nga koo fekk Play Store wala nga dem seen site bi automatique muy standard note standard note bu ko waxee mooy lan ñu bëri ñu ngi noté seen téléphone. waaye application yi nuy note kenn xamul ba xam wóor na wala wóorul bii standard note moom it open source la ba pare dañ ko comme li ngay noté dañ koo dañ koy crypté ci xeet boo xamante ne kenn lu ci mën a am accès imagineel ngay noté foo xamante ne daa am feneen fu mu koy enregistré ñu jékki-jékki données yëpp am ku koy tasaar si internet bi fekk crypté wuñ woon ko li nga noté lépp ci internet bi day tasaaroo kon moo tax lu mel ne standard solo la am na ñaari xaaj xaaj boo xamante ne gratuit la ak boo xamante ne da nga koy fayal yow yaay xool waaye bu dee noter rek nga bëgg bi ngay fayal mën nga koo kiiwal sa bopp boo si duggee mën nga see wut compte mën ngaa ñëw si paramètre ni mën ngaa def registre créer benn compte sign pour connecter sa compte xamante ne mën nga koo def sa machine am na site mën ngaa dugg sa machine di note yor ko sa téléphone boo si dugalee sa compte automatique day synchroniser euh, xamante ne foo dem na nga mën a am euh, données yi xamante ne moom it boo duggee ci configuration yi mën nga koo tëj enable passcode eh, ak yeneen ak jeneen eh, yoo xamante ne eh, mi ngi ci biir fii bis boo duggee mm, dugalal sa compte daal di def enable storage encryption muy bii ni storage encryption pour mu crypter la données yi nga gis ne lu ama am solo la pour boo bëggee denc say données wala déet kon lii moo nekkoon ci ñaareelu vidéo bi ci application yi nga xam ne mënoo koo ñàkk euh, bu dee yéem na leen wala comme genre vidéo yi neex na leen def ko si commentaire yi ñu continuer ko am nañ fi ay application yu bëri yoo xam te ne euh, mën nañ koo joxe mu ngi dépendre ci ngeen bëgg ko rek euh, lii moo nekkoon vidéo bi di sàkku ci ngeen abonné suñu seen YouTube bi portage vidéo yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh